boo bëggoon fàttali ñett yëpp bi ci njëkk mooy code de l'environnement bi projet projet bi ñu jox deux cent cinquante cinq articles amendement wu suñu yi ñu def vingt cinq articles de touché xanaa koy ku def ne nañ amélioré vingt cinq articles sur deux cent cinquante cinq articles nangu nangu nga ni liggéey bu am solo def nañ loolu am na solo trop ñaar amoon na fi ay projet de loi yoo xam ne bi ñuy indee fii dañuy def ay amendement di ko discuter bay xaaju guddi c'est la vivacité parlementaire ñett ñun député yi ay député lañu gouvernement bi gouvernement la tey nga ni ñii liggéey bi liggéey nañ liggéey bi ñu war a liggéey liggéey bu mucc ayib waaw wante léegi nag ñun nañuy liggéey liggéey bu mucc ayib suñu wàll sinon on supprime l'Assemblée nationale j'en reviens à cet amendement moo tax l'amendement que sur sur l'article 69 dafa fekki amendement bi ñu proposé woon sur l'article 5 sur les principes moi j'étais étonné quand dans les principes ñu proposé ni ñu dugal ñu ne leen dugal leen fa subsidiarité techniciens yi fi nekk experts yëpp xam nañ c'est un principe très fort sur la question écologique ñu ne leen dugal leen fu principe bu prévention waaye kanam kenn mënu ko boo ñëwee ci at soixante neuf foofu on parle de principe mais beaucoup plus spécifique à la question des déchets xam nga qu'est-ce qu'on a proposé ñun waaye jël leen dindi leen principe bu prévention nga def ko pour un principe général de les questions environnementales jël leen principe bu subsidiarité qui est très proche de la proximité fii def nañ ci principe de proximité, mais on ne l'a même pas défini. Qu'est-ce que c'est le principe de proximité Là, on a dit, prenez le principe de subsidiarité, qui est plus puissant que le principe de proximité. Définissez-le, n'oubliez que ce principe généreux. Là, on fait le principe responsabilité élargie des producteurs. Nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait, nous avons généraux. Qu'est-ce Ce qu'on appelle, vous appelez la hiérarchie sur les modes de traitement. Tu vois le Mali, quand il y a on peut dépasser même le cadre de principe à ce niveau qu'est-ce qu'on a proposé xam nga lan la ñuy wax dañ dañ la gestion écologiquement rationnelle des déchets obéit à la hiérarchie des waxuma que c'est un principe auquel il faut s'inspirer ça doit obéir à la hiérarchie des modes de traitement consistant à privilégier dans l'ordre la réutilisation le recyclage la valorisation énergétique et l'élimination le meilleur déchet c'est celui qui n'est pas produit doxalin bi ñu am ci déchet dañ naan waxuñu il faut s'inspirer à ce principe comme loolu loolu rek moo fa des de ci ñent ñi loolu rek parce que bu ma jëlee par exemple prévention teg ko fële ci principe généraux yi mu englobe tout ce qui est mu jël subsidiarité bu gën a fort possible mu dugal ko fële définir leen parce que cette fois on a défini que le principe de hiérarchie tous les autres trois principes ne sont pas ku la sonn xanaa sax li ngeen di wax nañ ko définir wala non non jarul définir non baax na non mais quand même wax nii doy tappale de yi mbirum xam-xam xam-xam moo koy réglé waaw ñu ne léegi ñaar am na benn PSE responsabilité élargie am na ci ñaar yëpp généro ak spécifique ñaar ñii nañ ko yóbbu yóbbu mu nekk généraux mu des lan hiérarchie hiérarchie ñu réformer yi bu leen ko def sax principe na nekk obéit à la hiérarchie des modes de traitement maanaam bala nga déchet liñ ci gën a tam mooy nga bañ ko produire boo demee ba nar ko produire la nga produit ñu bëgg nga utiliser laat ko boo amee pot ndaa nga dem jëlaat ko utiliser ko wala nga reen boo mënul def loolu ñu ne xanaa nga jëm ko recycler maanaam tey jii am nga plastique recycler ko mu ne boo boo mënul def loolu nga def ko valide nga def ko énergie dañ ñu nag ca cëppaandaw ga mënoo def loolu yëpp nga soog ko éliminer dama ni moo tax bi ngeen daa bi ñu daa bi ñu rejeté définition yi mu tiit ci définition yi xam nga lan lañ ci yokk ñun sur la question de la valorisation des déchets tout le texte ne parle que d'enfouissement d'élimination mais la la valorisation des déchets dama ni do waxantuma de allez man fii waxantuma fi ci déchet déchet déchet nag déchet nag